Bienvenue sur Salam Vision. Une synthèse de l'actualité à la présentation, cher Oussaro. Bienvenue. Le, le Khalif général des Mourides, Seigneur Muntara Mbake, a lancé hier appel à tous les musulmans du Sénégal euh, de piller, de former des prières dans les mosquées et des khasaïs pour, ponctuer le mois béni du mois de Ramadan. L'INAPAS, l'Union nationale des pêcheurs et artisanaux du Sénégal, euh, demande la démission très rapidement du ministre la Pêche, Aliou Ndoye. D'ici, ce ministre ne respecte pas du tout ses engagements vis-à-vis -vis des pêcheurs. Parlons de l'actualité nationale, le report des élections locales. Les ONG Ostotol demandent aux autorités de respecter scrupuleusement le, euh, le, fichier électoral et les Sénégalais. Parlons toujours de l'actualité nationale, parlons de l'éducation. Le pacte mondial pour l'éducation doit injecter milliards de francs CFA, euh, 5 milliards destinés aux pays euh, sous-développés. hors de chez nous. Nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo sera bientôt de retour en Côte d'Ivoire car il a été euh, par le CPI. Enfin, nous nous rendrons au Mali. La tension persiste entre les djihadistes et les forces françaises. Plus de 20 personnes ont été tuées. Dans un instant, la version off. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si di sëñ Mountakha Mbacké jël nay kàddoom ne képp kuy jullit war nga def ay ñaan demal ko si jàkk yi ak juma yi euh, wàcce fa alxuraan wàcce ay xasaay di ñaanal réew mi jàmm mooy kàddu nga xam ne sëñ Mountakha Mbacké di xalifa xam ne murit moom moo ko doon wax ginnaaw euh, fële ca Touba di jëm si mbirum euh, xibaar UNAPAS mooy union nationale des artisans et pêcheurs du Sénégal ñoom nag ñi ngi ñaan euh, nguur gi ñu tekki ndombal tànk Aliou Ndoye di ministre bi ñu euh, wàllu napp gi mooy ministre boo xam ni tey faalewul nga xam mooy nappkat yooyu. jëm na ko si élection local yi ginnaaw bu ñu ko toxalee atum février 2002 kuje bi nga xam ñooy ONG yi. organisation des droits humains ñu mën ak nguur gi ñu mën a leeral askan bi lépp yoo xam ni jëm na si fichier électoral boobu. Euh, bitim réew la ñuy toxantoo fële ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo nekkoon fi njiitu Côte d'Ivoire moom nag mi ngi waaj a dellu si fële ca Côte d'Ivoire. Euh, ñi ngi jël ay matuwaay yu mot sëkk xam mooy nguur gi ku jël politique bi euh, seet naka la ñu a dalale ki xam mooy Laurent Gbagbo tëj ko fële sa Euh, fépp yaa ngi euh, def ay mbooso fële ci bët gànnaaw réew mi euh, far nañ ko barki dem far nañ ko barki dem ñaar fukki doomu adama ñi to toxañ loxo mooy Barkhane mooy les forces françaises mbokk li moom si ay xibaar si kàllaama Kocc Barma ñu ngi gërëm leen sant ba ëllëg incha allah.